Voilà, toujours en compagnie de nos très chers internautes qui nous suivent à travers euh, le Sénégal, à travers euh, le monde entier. Nous avons dit que nous avons dit dès le début, nous avons dit que nous avons dit que nous en exclusivité. Li nga xamante ne mooy image yi am ci inauguration du stade de Diamniadio ñu tuddee ko maître Abdoulaye Wade à qui euh, nous souhaitons une très longue vie euh, gis ngeen musée bi fi am aussi ñu tuddee ko euh, notre très cher Bouba Pape Bouba Diop aussi ñu koy ñaanal fu mu tëdd gënal ko fop euh, fi nga xam fi la jógee donc gis ngeen ko stade bi li fi am ci ambiance li fi am ci fierté euh, ko waxtanal euh, ko jonjonteel nga sentir au fond de lui nga xamné ki amna contenté vraiment il est fier de ce jour d'inauguration du stade ñoo leen ko digon yemuñu ci ci kanam tuuti dina am match de gala entre des anciens professionnels di ngeen ko am en image aussi di ngeen am dara du leen rëcc di ngeen am tout tout toutes les images yoo te ne ñoo am fii ci inauguration stade bi euh, dig naa leen ko dans quelques instants aussi ñu am image yi. sul! É de quem? Alfeno Sul! Alfeno Sul! Bodio, bodio, Semana! Deu DJ Khecha yaa ngi ànd ak ñun tay ci inauguration du stade euh, de Abdoulaye Wade ici à Diamniadio euh, Khecha ban impression nga am ci dugg bi nga dugg ci stade bi. Ma ngi lay contane, c'est un frère c'est un euh, confrère bo xamni wax deug Yalla. Suma way la moma, ah, ma ngi contane, man tam am plaisir comme niko ñep amé comme tout un chacun. teew fii ci stade Maître Abdoulaye Wade bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñu ngi ko doon xaarandi mu yegg si bés baa ngi xiif nañu waaye du feeñ suñu kanam ndax mbégte wax dëgg yàlla. effectivement yaa ah, gis naa euh, sànq bi nga duggee man sentir naa ne kii euh, dugg na avec une très grande euh, fierté. waaw mise à part liggéey bi ñuy liggéey. ku dugg ci stade bi dañuy xam ne dangay ngay am contentement. mais xel yu bari dem nañu tey ci kante ne moom mooy notre défunt joueur. Euh, notre fierté Pape Bouba Diop. waaw Pape Bouba Diop ndeysaan mom wax deug yalla buñ ko tuddé musée bi sax def nañ lu rafet ndax dégg naa musée bi ci stade bi euh, mom lañ ko tuddé mu doon euh, lu lu lu lu extraordinaire. Euh, parce qu'il faisait partie des des des des joueurs yi nga xamante ni won nañ leen ci CAN 2002 euh, bi ak Coupe du Monde bi nga xamné ne nañ ci donc ñukoy ñaanal yalla fu mu tudd yalla nako gënal fi mu jugee wax dëgg yàlla tey nag ñun plaisir la ñu am aussi yegg si fii àndandoog euh, euh, ñëpp pour euh, teewale bii la bis wax dëgg yàlla moom c'était quelqu'un boo xamante ni on l'oubliera jamais jamais jamais jamais voilà. parti